Buzz Sénégal Actu salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez président de la république woo assemblée nationale député yi alxames ngir ñu ñëw ñu waxtaane CSE ak euh, conseil des collectivités territoriales ndax dañ ko bëgg a dissoudre ndax bari njariñ te li muy jël ci xaalis bari na indi na jeexi jaaxa ci député Benno Bokk Yaakaar yi am na am na ñooñ euh, ci politique yi ñoo xam ne parti socialiste AFP ñu nga bëgg a dajale seeni doole ngir bu ne kat ne jonn législatif ñu mën cee am as tuut sax suñu mën a opposé wo waaw Abdou Mbow daal ne Sonko na xam ne menaces yi tiitaluñ fii la ñuy fekk daan xeex ak moom ba coogi fe Bougane Gueye Dany daal ne histoire wane na ni ci nguur gii dañoo lànk recevoir ay gani Serigne Touba ca King Fat Palace te ñuy défendre góor jigéen yi Mélenchon bi ñuy ñëw Sénégal teg nañ leen ci condition yu baax programme opposition bi bu joyee moom mooy diggante Ousmane Sonko ak président Diomaye tas tasar lay def ndokk yàlla ba ñoom ba ñu ko xamee ñii ne ñetti nit lañ ñii ne ñeenti nit ñetti grand ak benn jànq ñoom ñoo fab signature bi Sonko falsifié ko di ci def ay musiba mbàmba kumba yoon teg na leen loxo juróom-ñaari nit ci mbiri Aziz Dabala defeere nañ leen am nañ ci ñu bari nag ñoo xam ne ci TikTok bi la nekk di defi enquête ak yooyu noonu lañ waajal seen bopp ndax ñii moom <laughs> seen bu seen i pexe doyee li ci bari danañ euh, danañ dem kaso nekk leen foofu di enquête ndaw yi Sénégal ñu ci ëpp Sinébar mu ngi leen di lor di leen rey ba pare di indi xeeti violence maanaam drogue yeeg volet yeeg ah kon dañ ko wàcc rek musiba de attention mu ngi lor de a ah, baax na te nañu yàlla may kendal ak jàmm service yi nga moom tàmbali na liggéey ba ndokk yàlla